war a tax nit ñi war a xam ni ñun bougé wuñu fi ñu joge moo di at yi sorewul ku fàttaliku tuuti rek di nga xamee ne nguur gi gannaaw dogalu borom bi bokk nañu si ñi ci gën a liggéey pour mu samp ndax la ca waroon a def yëpp man ak suma i ànd nañu lañu ci ca neex ak la ñu ci naqari ñu def ko ba mu mat sëkk ba yàlla indi lu ñu ci ndam bu sénégalais yi bëggee wax ne lu tax man ma retiré wu lii nga wax léegi bokk na ci ndax mënumaa ànd ak nit koo xamee ne gënuma ko waaye wér na ma ne it gënuma muy sama nawle ñu àndandoo pour liggéeyal Sénégal ñu waxante ay wax yu rëy yoo xam ne ci kanamu Sénégal lañ ko wax mu daw ñaari weer benn ca la mu waxoon soppeeku ñu dawaat ñetti weer beneen ca la mu sopp waxoon soppeeku ñu doxaat tuuti la maanaam mu ne alalu réew mi dañ koy delloo fañ ko war a delloo mu commencé ko bàyyi fekk sàcc ya gën a màgg ca réew ma mu xëy suba dugal leen ci benn fóotu bu am maanaa bu génnee ñu seet wecc weex tàll mu jël fat ci biir këram ñu wëlbatiku lépp lu ñu doon wax gouvernement wu vingt wala vingt cinq ministre yéen doon wax léegi boo gestoo mu bëgg a nekk ñeen fukk baalu ko ëpp ci ay ministre lu ñu mosoon a critiquer Abdoulaye wàdd ci ay institution yoo xam ne amul njëriñ ci réew mi lu dul yàq alalu réew mi tey jii bis bu nekk ñu indi la lu bees lu mel noonu lañ doon jooy ci Ablaye Wade yépp yëpp yëpp yëpp ci méthode bi tey jii dafa mel na ni bàyyi fi woon Ablaye Wade sax moo ko gën ndax li fi nekk tey jii nekk fi woon sa jamono Ablaye Wade yooyu dëgg dëgg dëgg nag su fekkente ni man sénégalais laa te ma am yéene ci réew mi ay la yëwan Macky Sall nag fekkuma ñuy fekkul ku mel ne man ñu koy jaay ca marché muusante mu jënd ko xam nga bokk ci réew mi ak patriotisme moo tax ñu ànd

xarab bu ñu xarabul Ablaye Wade ci wàllu institution yi dem nañu critiquer méthode Ablaye Wade moo tax ñu samp assise nationale wër réew mi juróom-ñaari yoon gox bu nekk kuréel bu nekk ñu dajale fa ay jaamur ci réew mi ni leen lan mooy seen xalaat ak seen yéene ci réew mi ñu xayma loolee lépp bind ko mu doon ci résumé charte nationale de bonne gouvernance maanaam yoon bi nga xamee ni moom la ñuy sellale tey bi ñu war a téye réew mi bu ñu demee ca loolu ñu engagé woon loolu doon critiquer critiquer yu rëy yooyu xëy suba bëgg légaliser lii ñu au conseil des territoires yu demee noonu. ma ne xaj naa ne na gën loolu dëgg dëgg dëgg magum jëmm bu la di bu la bu lay dee dig benn mbir di la dig benn mbir ba nga jël sa confiance jox ko ko nga jox ko ko mu daal di def contraire la nga ko wax loolu lan la ko tubaab di tudde tuddee escroquerie kon nag gars yi ay lañu ci wàllu googu parce que tamit. deug deug loolu motax li tax sénégalais am problème té na affaire bi du ñàkk guin kenn du yëpp kenn ndax képp kenn si ñoom xam nañ ni bu dee relations humaines rek respect ak considération bu mat jox nañ leen ko wayé nak dañoo bokk réew mi alal ji ñuy fooye alalu sénégalais yi la ci réew mo xam ne ni dafa bari priorité tay ji bo jëlee 150 ci ay sénégalais nga ni 80 ya kay falé koy fale ci sa coobare bopp 70 yi yéen xëccoo leen ah xam nga loolu mooy si weesu ëpp na séddale bukki ndax danaa xanaa da naan bii bukki bii njuur bii sàmba bi si des njëkkante la te njëkk naa si dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg vraiment man je pense que ni yàgg nañu dund en tant que Sénégal am na foo xamee ni fa la ñuy xaar homme politique yi dafa jaaduwul non dañu am ay farata yu mag a mag a mag yu ñu war a toppatoo wëlis farata yu ndaw yi mais barki démb Ndiaye la gouvernement bi di wax ni bëggatul xaleel di tere na ci mbedd mi laawaale ci xaleelu taalibe yi laawaale ci jigéen ñii yelwaan ak góor yi yelwaan waaw nga defe ni boo jëlee HCCT bii nga xamee ne xaw ma lu mu doon bëgg si dugal huit milliards wala neuf milliards yaakaaroon ne neuf milliards yooyu boo si jëloon at bu nga jël neuf milliards yooyu dugal ko ci taalibe yi wala dugal ko ci xale yi tere na ci mbedd mi xale yooyu gënuñu yeey paa yu màggat yi ak ñi tëppalekat politiciens yi ci alal jooju ah gars yi développement yomb na. kon d'accord ci daal. non du question d'accord naa seen d'accord dafa jaaduwul xel daf ko warta mën a nangu. foofu la ñu toll. yéen taxawaay. suñu taxawaay kañ mooy. waxaat sénégalais yi ni leen bañ leen dee wax bañ leen bu leen ko woteel référendum hmm. lii la woon. pourtant de bare la ñu doon wax naan ak a baax fukki poñ ak juróom ak am solo boo ko déggoo la mën a wax ndekete tàppale kese ci nekkoon. la ci nekk un calcul bob. Hmm. la ca nekk un péché, man li yàq programme boobu ngay wax PSE yooyu la ndax PSE mënul am njëriñ ci réew su fekkente ni ca biir PSE ba ngay génne tabax bu euh, centre Abdou Diouf cinquante quelques milliards nga jël ko dugal ko ci benn ndandu fay fay hmm. mu wóor la fii léegi at juróomi conférence dafa am réew mën na mën nek mën na nekk ci loolu nga nekk réew mu ndóol ñàkk di ben ngandum building bo xamné dina la coûter 50 et quelques milliards te filé fukki at peut-être doo fa am lu mat juromi conférence. laaj nga ko jàpp ah non mais yow lay laaj nga wax ma ndax lajjite la wala lu yonuma maanaa la wala fontu la wala tiaxan la muy ben nga wël batiku ñu né dañoo bëgg défa ben train bu joggé AIBD jëm Dakar train ba ñaata ñu né 500 milliards. Hmm. ñi ne nga di leen waaw léegi train boobu lu ngeen ci bëgg ñu ne dañoo bëgg muy jël cent cinquante voyageurs. par jour pour lan pour mu jëlé ñu jëgë aéroport yibbi len seen kër te kat aéroportu Dakar bi 4 millions de voyageurs lay am ci at mi manam bis bu nek 20 personnes maximum ñoy tukki dem ak dellu ci waaw légui bo bëggé jël nga né train bi 150000 la yow li nga am ci voyageur bu kenn wulé auto kenn jëlul taxi 20.000. la waaw légui 130 yow fo leen di def fo leen di jëli ji. da nga bëgg a fekk bara ñiy dugg Ndiaga Ndiaye nga xam ne seen paas Ndiaga Ndiaye rek la yem nga bëgg leen dugal leen ci train boo xamee ne amul fenn fu ñu jëm nga nga bëgg amee seen oto bàyyi ko fa yooyu laa ni la mooy xeetu dóor yi nekk ci réew mi ñu tuddee ko nag programme de développement. maanaam la xeetu dóor la. xale xale yi xale yi xam nañu dóor mooy lan xale yi ñoom xam ñu dóor bu baax a baax dóor mooy weer wu làq koo guy da nga di pousse programme ñu defa ni programme la fekk ke suuf am na loo fay retiré loo mo lay permettre nga mëna am say taxaway yu lay mëna permettre fa nga bëgg yegg ak ñinga bëgg jënd ñinga bëgg waxantel ñinga bëgg noyal fa nga bëgg mu dëgër nga bëgg mu noy et cetera nga mën ko fa def yamul ci lolu da nga ni programme de développement rek pour wax Sénégalais ni borom xam-xam ñakul ci réew mi même autoroute Ila Touba bi man doomu talibé la tey murit te yéena Touba lu nekk waaye bu ma dofulee xam naa ni politique kese moo tax ñu ne Ila Touba dinaa la wax lu tax ndax ñun murit dañoo am histoire am lay fàtte bi ñuy tabax jumaay Touba maam Cheikh ra maam Cheikh Anta Mbacké Cheikh Sidil Mokhtar yàlla dogal sax turandoowam nekk xalif yal na yàlla yokk leeram yokk taxawaayam yokk kattanam li mu yéene yoon wi yëpp mu def ci ba def ci lu kawe njortam rakkam yu baax yi ak cheikh yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ca jamono yooyu tubaab ba ba mu bëggee gàllankoor jumaa ji mag yu baax yi jël dërëm ci kaw dërëm tabaxal seen raay jëlee ko Jurbel yóbbu ko Touba. man ni man Cheikh Bamba Dièye de bu ma doon président de la république war ni gars yi ñu mën a kott amuñu mbaam. bu ma doon président de la république xam nan laay doxalee Ila Touba. Ah, damay dem ci Cheikh Sidil Makhtar. Hmm. ni ko Mbàkke kat lii de. dina yokk Touba ndax dina tax taalibe yépp seen ñëw gën a yomb te wér ma ni yow boo jëlee projet bi ensemble nga téyal ko sa bopp créer sa benn fonds d'investissement woo say taalibe ni leen kat gars yi nee nañu cinq cent milliards la waaye cinq cent milliards boo ci dindee commission yi dindi si nangam ak nangam xëy na ay trois cent wala deux cent et quelques milliards lay jot ndax autoroute Agadir Marrakech ci ay montagnes lay jaar te moo gën a yomb ñetti yoon autoroute Ila Touba bi nga xamee ne ci terrain bu ne taaya bu tàlliku la nekk pour diir que ni rek kon bu ñu ko jëlee seen bopp njëg la dina wàññeeku bu baax a baax bu ne taalibe yi aywa lu waaye man ñëw ci ñu def ci wóor na ma ni at bu njëkk ba cent milliards dina taxaw ba sa topp beneen cent milliards ba sa topp beneen cent milliards en terme économique maanaam nga mobiliser l'épargne nationale maanaam alal ji nit ñi moom te mu nekk ci réew mi ñu jël ko de manière bénévole dugal ko ci te bu boobaa doo am gen wàllu genn wàllu autoroute boo xamee ni da ngay seet diggante ndakaaroo ak avant ngay yegg jëm ñaajo mille quatre cent ngay fay hmm. tey jii ñooñu bu ñuy téer bu ñu ko tàllalee mu jëm Touba xanaa kon di nga fay vingt mille francs aller wala vingt mille francs retour léegi boo bëggee fay quarante mille francs pour jël autoroute boole ko ak sa essence fan nga jëm si nga moo tax ma ne la question de développement hmm. moo téye kër ñoo yem ndax ku nekk dépense ba nga am boo ko organiser yemale say bëgg-bëgg sa la nga am di nga si mën a def lay farata naka nga gën a mën a organiser sa bopp rek di nga mën a jëmee noonu te fi ñu tooñee suñu bopp ñun moom laa lay wax ni waxtaanuñu après indépendance yi ndax bu ñu waxtaanoon nañu waroon waxtaan dañuy xam ni réew mi du France donte France daf ko nootoon dañuy xam ni réew mi yeneen réalité sociale wala yeneen réalité ci wàllu diine wala ci wàllu demaleeg fekkale moo si nekk ndax tey jii amul lu Cheikh Sidil maxtaar bëgg ci réew mi te du ko tabaxal boppam kooku la te njariñ la ci réew mi waaw nan ngay am lu toll noonu ci sa kanam bëgg a fattu fattu ba jiggi di jiggi di jiggi di jiggi bay dem sa bitim réew di lebi loo ne ni njëg la amalu la benn njariñ te day cher lool te après boo ñëwee jox ko ab tubaab mu moom ko dese nocc ci koppar gu dul jeex goo xamante ne tey ji bu ko yoon wi taxaw tabaxoon xam nga ni moos njëg la dina yomb lool te investissement boobu la cay génn dina baax ci Touba ci wàllu assainissement am dina baax ci Touba ci wàllu euh, euh, ci wàllu télé yi dina baax ci Touba ci wàllu université yi sëñ bi bëgg dina baax ci Touba ci yeneen ak ci yeneen ci yeneen yooyu laa ni boo bëggee développer réew da ngay tàmbaleeg waa réew ma liggéeyeek ñoom pour mën a jëm sa kanam waaye nag jël lépp tekk ci élection ci lépp mooy nan laay fexe ba toog fi nan laay fexe ba taxaw si mm-hmm. bu ñu nee élection nga daal di jël lépp taxas jëmale boor ni télévision nga daal di waabale lépp daal di yeneen même privé yi nga ne léegi xaalis mooy tax nit dafa jot moom mel ne nit ñi bokkatuñu ci benn réew yematuñu ci dara taxawatul ci la nga xam ne moo doon équilibre yi normal yi ñu war a mën a nekk. affaire yi du question xam nga ñun ay doomu taalibe lañu te nit ki bu nekkee taalibe. Sëñ Tuubaa dafa wax ni murit mooy koo xamee ni moomul dara waaye dara moomu ko. kon war nañoo am. woyofte ak yërmande goo xamee ni lenn luy kañaan jëm ci kenn du ci ànd te la koy wan moy fek maa ngi doon ànd ak moom mosoo dégg lenn lu sama takawai. ak rendement ba mu war am jëm ci kon defe naa ni tollu wootuñu du dem ba am juróom fukki at di toll di yëkkati kañaan wala di wëkk ay pexe ak ay lal ay njaaj ak yooyu jëm ci kenn dañ cee dañ lay tamit si li tax ñun tamit ñu daal di suñu distance par rapport ak ñoom exemple yaa ngoog ndax am na ay jamono lu ko waay wax ci réew mi ci wàllu transhumance mu ne non bu leen sonn of naaga ngi fi. dina laj mbati ba lëj mbati samay gaa ñun li ñuy wax nii ay waxam dong la. da amuñu xoolal amuñu amuñu pour wutal gasal ka pax ci dara dara dara lu ma la wax rek lu mu wax la moom. Mm. te nit ki dañ koy natt ci ay kàddoom ba pare. mingale kàddu yi ak jëf ji pour mën a seet ndigam kii mérité na ñu jàppale ko wala déet ndax jamono yooyu lu ko waaye critiqué mu ne so soxna saa ngi fi liggéey bi dina mat waa nan nga bëgg a jël loo xamee ne da nga ni pour leeral la pour settantal ñi nga xame ne ñooy war a gérer réew mi te structure boobu wala institution boobu bu jotee say kilifa kilifa googu au mu am dal xam ne moomul réew mi dañ ko yebal comme ñuy yebale na fi ngoom da ngay dégg yenn saa yi ñàkk teggin ñakk orma ñàkk respect gu wér jëm ci benn benn essentiel bi jëm ci boppu institution yu mel noonu ndax laa koy indi yëpp mooy yaakaar nañu ni am nañu protection bu ëpp li nga xamee ni mooy seen warugar ci biir réew mi. ndax soxna Nafi Ngom Keïta ni mu doxalee homme d'État dana doxalee noonu ci wuñ ñi loo xamante ni nee nan waru ko mën a tasaare ci média dafa wuññiwul dara. tasaarewul it dara li wax kañ moo di engage na ay dossier jëm ci ñoo xamee ne dañuy jëfandikoo alalu réew mi te jëfandikoo ba rafetul mu war a mën a topp loolu ñu convoqué que daal di ni que kat affaire bi jàppoon nañu ni suñuy nit du ci bokk. ñu mel ni que. bare nañu. comme non soxlawul ma koy tudd amul sens si man man du ma of nag xam nga man damaa féete ba pare man maa ngi si opposition bi samay mbir dafa leer nañ. mais dama lay wax li jóge ci biir OFNAC. Ah, waaye bopp sénégalais yi. Mm, mm, mm. non xam nga bopp sénégalais yi jarul ma koy tijji si di wax naan diw ma sàmba ma nekk ca kudd wala diw ma sàmba ma nekk ca ministère nangam wala diw ma sàmba amul njariñ li fi nekk ci réew mi man ak yow ak samay moroom yëpp ñoo ko gisandoo indi bee ko suus problème bi ñu am mooy il faut que sénégalais bi xam ni Nafi Ngom ak Macky Sall ak Bamba Dièye ak keneen ñoo yem ci réew mi réew mi dañ koo organiser. jël président de la république jox ko ay cër ni que fi ngay tambalé fi ngay yam mën nga nommé ca of nak waye mëno leen wan yoon mëno leen wax fan lañu wara yam ak fan lañu warta yam ta yem te munoo nag tant que sen mandat jéxul mëno soppi bop ba na fi ngom bu jappé ne déssé juroom ñaari wala juroom benn weer bu gisé ne gattal nañ ko ay fanam ay fan ngeen bëggee mu tok wara dam loosam ni ni d'accord na président du Yalla du yonent nit la day day apprécier situation mën na dawal intérêt bopam comme mën intérêt Sénégal kon nak ki nga xamé ni loi mo leen administrer bu pouvoir jógee teg ci sa kaw lu jaaduwul mun la am nga sañ-sañu demal sa tribunal fa mbaxane di benn nga laaj fa tontu bu la may ñu wan la wax ndëgam am nga ndëggam déet mais loolu dañu war a sant yàlla. ndax Sénégal si si boo xamante ne soxna si demee foofu danañ ko àtte comme ñu ko lan ndax am lan am na fi. justice boo moom boppam. mi ngi dépendre rek ca nit ka nekk ca bopp justice ba te foofu la ñu amee jafe-jafe. li tax coow li nu kur nga dégg naan waru woon a dem waru woon a dem tribunal waru woon a dem yëpp parce que nit ñi dañoo nanguwul jël seen responsabilité si jamono joo xamee ne na fi daf ko jël te réew ci loolu lañ koy tabaxee nit ñi xam ni président makkul fépp moomul fépp indil naa la indil nag diggante euh, Lat Joor Baay Xaali ak Serigne Touba nafa an allahu bi barakati yi bi ñuy demee xare Samba Sadio ak contre Amadou Cheikhou ñu jàpp ay tukkuleur def leen jaam sëñ Tuubaa dafa ne araam na ci nit muy jàpp jullit du ko def jaam ba ñu yeggee wax ja ca bàyyi xaali dafa wax sëriñ bi ni ko kat Amadou Cheikhou da doon woote ni yonent la te kuy woote yonent daggan nañu rey la kon daggan nañu jàppale jaam sëñ Tuubaa ni ko kan moo wax ne Amadou Cheikhou da doon woote yonent mu nekk Kajoor mu nekk kan moo doon xeex ak Amadou Cheikhou mu nekk Kajoor mu ne ko waaw nan la nit di xeex ak nit ba pare di wax si moom lu baax ba wax ja tourné nag Lat Joor daal di woo maam xaali ne ko nag léegi nag il foog nga wax ma doomu Mor Anta Sali ji lan mooy pexe Lat eh, maam bàyyi ca xam bu rafet ba ne ko nag ku nekk am nga ci sa kër ci sa tool place boo xamee ni sa tànk du fa dëgg te terewul nga moom tool bi nag ci réew mi mooy place bi nga xamee ni Macky Sall tànkam waru faa dëgg te te terew ko mu yilif tool bi yépp li jaxase affaire bi mooy dafa dugal tànkam foo xamee ni loi daf ko permettre mu dugg ca biir loolu kese la diggante bi nag wutal leen fi lay Macky mooy samp leen tappale ci réew mi ñàkk fee jàppale na fi Ngom Keïta mooy samp tappale ci réew mi ndax nit ki du jaagee ni dafa am doole rek que moo am dëgg déedéet Sidi Aboubacar la mu waxoon sa Sadiq la mu waxoon ba mu wutu Rasulullah sallallahu alayhi moom la ñuy delluwaat fii du ma tàyyi fekk nit ku néew doole borom doole taxaw di ko jaay doole ngir néewal ko du ma noppalu ndaree ndaree ndaree fexew ma ba doole ga mu doon jaay ak jaay ak dayoo ga mu doon daye dajee ñu ko ci moom jox ko ki nga xamee ni moo ko yelloo donc loolu sénégalais yi dañ ko war a jéem a jàng of nag dafa di ay place ci réew mi yoo xamee ni président tànkam waru faa dem te dafa war a donte sax mooy ki nga xamee ni moo war a ka fa war a nekk Ousmane Sonko ak ñeneen ñu mel na moom yëpp mooy même àtte bi ndax li war mooy ñun Sénégal réew mi dañ ko bokk te nit ku sa alal war nga ko sàmm alal ji nekk ministère de l'économie et des finances ministre ba moomu Macky Sall man yow Ousmane Sonko ak keneen ñun ñëpp ñoo ko bokk yow di nga nangu sa alal ben way ñew diko fowé diko duggal fu mu wara duggal nga ne kay eh, diw mi kat mi ngi sàcc sama alal ñu ne lu tax nga wax lolu ya tax yoonu na maana gan gay nañ bàyyi topalé té té té xamné amna ci réew mi ño xamné changé wu ñu dé <laughs> nit ñi bëgg dof rek waaw ma nit ñi daan bañ démb ak barki démb ñu nga fa. élection législative yi wara ñew 2019 inshallah 2017 mu melni euh, euh euh ministre de l'intérieur génn na wax na.

xam nga ni moos assemblée nationale bi doyul kenn ba ñu si yokk benn fan de plus nañ ko dakkal fa mu gën a gaawe fa àpp ba jote nañ ko fa yemale ñu delloo baat askan wi. Mm-hmm. ñu tànnal seen bopp ay yeneen i nit yu leen gënal wala bu leen neex aussi ñu delloo ña fa nekkoon kooku si liberté sénégalais yi la. taxawaay nga ci nar a am 2017 yi euh, législatives xam nga ñun FSD/BJ dañoo am histoire ci assemblée nationale histoire wu rëy rëy <laughs> xaleel mag ndaw góor ak jigéen ñëpp xam nañu. Uh-huh. ban xeetu député lañu su ngeen bëggee nag assemblée nationale dellu fa mu waroon a dellu rek fexe leen ba Cheikh ak ña mu àndal bare fa lool ndax garantie moom dina wér ni dinañ leen toppatoo dinañ leen aar leen défendre ndax loolu rek lañ fa mës a def. loolu rek euh, lañ am na solo. Euh, boobu dañuy gis ni léeg-léeg euh, sa parti bi bëri nee da ngay xaw a bàyyi léeg-léeg da ngay xaw a bàyyandiku ba nit ñi ni est-ce que FFDBS yi mi ngi dund léeg-léeg ñu gisaat la nga fëlaat ak loolu nga fëlaat. ma dib sénégale aussi comme ñëpp man jëluma alalu jaamur donc foog ma dund comme sénégalais yëpp dama am problème mu courant comme ñëpp am problème mu ndox comme ñëpp am jafe-jafe yi nit ñi dund comme ñëpp tooguma si ay milliards yu dul jeex di dunde nag daaneel diw pour remplacer ko déedéet dama dib citoyen jàpp ni ci réew mi la bokk ànd ak sama ay nawle ñuy xool jamono ju nekk réew mi nag du rek lu tëb rek ñu tëb ànd ak moom du rek fu mu xewee rek ñu ne ay wa foofu nañ fa dem bëgg a nekk si benn ñebe si kenn déedéet bu ñuy wax dañ koy natt bu baax seet que c'est jamono ja bëgg nañu aussi lépp lu ñuy wax sénégalais yi may ñu nopp bëgg nañu aussi li ñuy wax mu amal njëriñ réew mi loolu moo tax du lu jóg rek ngeen gis si fsd yi du lu jóg rek ngeen gis si Cheikh Bamba Dièye te it ñu xam ni amuñu complexe pour assumer lu ñu doon amuñu complexe pour wan sénégalais yi nii ay citoyens lañu te yéene nañu réew mi jàmm te dëgg dëgg dëgg nag euh, bu preuve doon doy preuve daaw ak bërki daaw yu doy sëkk ci suñu capacité ak suñu man-man ak suñu yéene ci réew mi loolu rek la ñu bëgg chaque fois bu ñu woowee ci jataay yu mel nii du ñu wax ba mu ëpp duñu xotti sutura jaamur. su leen fukki fukki tomb ak juróom xaaj bi sax d'accord leen ci léegi neen président mooy arbitre. yor ci su demee ba ci mujj nag mooy jël ay responsabilité ndax fichier électoral bii nga xamante ni bii moo fi nekk te Macky Sall ci la gagné woon wëlbatiku bëgg ko sensé ndax yow d'accord nga ci loolu. moo am yéene ji ñun opposition bi si boppam man keroog ba may jël kàddu ca kanamam la ma bëggoon wan réew yi réew mi yëpp mooy añaan awma ci dara soxoruma it te nangu naa ni moom la sénégalais yi fal mm. waaye it nangu naa ni man ci réew mi laa bokk te am naa ci wàll mm. ndax. bu fekkente ne bis bu nekk damay dem ci rajo yi di critiquer méthode gouvernement wam ak ni mu téyee réew mi bu wootee waxtaan si ñu ko bokk war naa mën a dem janoog moom les yeux dans les yeux sans yeb ka sans manque ka de respect wax ka li ma gëm wax ka li nga xam ne aussi moom la ñu war a def ci réew mi te biir wax ya ma ko wax wax naa ko ni ko ñun suñu démocratie dafa reculer référendum bi wane na ni manquement yu jéggi dayoo am nañ ko RTS lu ko neex la téye élection yi ministère de l'intérieur kazalika naka noon dugal ngeen ci biir réew mi loo xamee ni xeetu recul démocratique la yoo xamee ni suñu bëggee ni Sénégal day tegu ci yoon dañuy nax suñu bopp boole ci biir tamit état bi nga xamee ni fichier électoral bi jot na ko nañ ci góor góorgóorlu ñu def ko audit te séance ba la wax ni moom d'accord na ci li opposition bi wax pour ñu def audit dina wax ministère am pour ñu tax ko nit boo demee tey réew ba mu jaxasoo ba mu jaxasoo ba nga yëg ni nag jot na nga woo gars yi pour jàmm am je pense que ni nag euh, góor sa góor sa wax ja waaye nag nit ki looy woote da nga koy nuyu il faut que xaw ma yan jamono la ñu warul woon waxtaan waaye jamono yi farata jot na ndax mënuñoo am yaakaar pétrole ñu bare ni pétrole boobu dañ ko def tuba yi paate ci paate képp mm. te tubay ji réew mi yëpp bokk ko loolu aussi loolu moom loolu moom yow xam nga parti bi may wax kañ sax loolu moom ñi ñuy waxtaan ci biir affaire bi nañ ko maasale noonu rek. est-ce que léegi mooy que moom fii ku fi toog rek. fii réew mi xam nga xam nga xam xam nga réew mi. rumeur daf ko yore yorewul ndax werante xuuxaan tekki tubéy. Hmm. boo yoree di jëf ci réew yàlla jiital la ca bopp réew ma ci coobare nit ñi. Hmm. ñu am lu rëy lu ñuy wax yow kañ damay indi këyit ba ne mi ngi nii rek boo ko indee rek wax ja jeex. tant que loolu ñëwul moom la budda foog ndax dañ cee bokk ndax waruñoo mën a accepter am pétrole bëgg mujj teere comme Nigéria wala am pétrole bëgg mujj teere comme Libye wala Irak wala am pétrole bëgg a teere comme Gabon parce que chaque fois ci réew yi bu xéewal yu mel noonu ñëwee au lieu mu indil leen jàmm ak salaam ay ak fitna bu dul jeex la leen indil ndax rek benn njaacaar rek moo fa bëgg a taxaw teg diil nit ñi bëgg a dóor marte ñëpp te loolu mënul nekk waaw ñaareel ba aussi ci biir waxtaan woowu bokkoon na ca lañ ca bëggoon moo di ñu mën a dem ba nga xamee ni dañu naan lii ci xaalis boobu dafa war a dem ci li nga xame ni mooy zone yi gën a doy ci réew mi mm-hmm. fa mu gën a mettee beneen wàll bi dem ci projet yu mag yu ñu am mm-hmm. beneen wàll bi ñu denc ko pour sénégalais yi ñëw ëllëg ak gannaaw ëllëg mm-hmm. bokkoon na si aussi ci li ñu bëggoon ci waxtaan woowu mu doon waxtaan woo xamee ni dafa ñuy indil ay situation yoo xamee ne dina mën a permettre bu ñuy dem ci élection lépp loo xam ne dañ ko bëgg ci wàllu audiovisuel ak télévision mu yem te yemale ñëpp yooyu dafa doon tey jii li nga xam ne moom la réew mi yëpp di xaar ci président bi président de la république moo war a am dayoo ak yëkkatiku gu war a tax mu xam ni lépp lu mu def ci élection bi lépp lu mu def ci leeral manière bi muy téye réew mi defalu ko boppam askan wi la ko defal

boo koy créer dangay ngay xëy suba ni ah dama am yéen a toggal Sénégal. Mm. loo xamee ni mooy développement ku nekk dem duggali sa bopp. waaw bu parti bu nekk demee duggali boppam ba heure yàq jot kii yàq ceebu jënam kii yàq yaasaam kii yàq domadaam pourquoi ngeen bëgg ñu jaxasee lépp mu doon benn affaire yéen kay ittewoo leen eh, seet bu jamono na jotee ngeen seet ka war a mën a téye réew mi rek ngeen dénk ko ko waaye seen yoon warta nekk si. ndax ndax ndax ceebu jën beeg dama daa beeg suppu kanja bi jaxase nañ ko am parfois yenn jaxas yu bare yi sax baaxul ci biir. waaw ñun Sénégal dañoo tiit. Ah, waaw déedéet amu leen lu ngeen. déedéet sëñ bi xam lu tax Sénégalais bi war tiit ndax Sénégalais bi dafa yore clé bi ba pare bëgg defe ni clé bi yaa ngi ci loxo keneen caabi ji caabi réew mi mi ngi ci loxo Sénégalais bi dinaa jox benn tegtal yi nga Sénégalais bi bu ngeen décidé woon yéen ni élection législative yi du ngeen may seen carte képp koo xamee ni mos nañ la tuumaal ci lu feeñ wala ci lu nëbb ak ci alalu réew mi kon réew mi sauvé na sans compter que ni opposition bi ànd ak bañ a ànd bu mu seen yoon nekk ci loolu kooku seen affaire la ñoom opposition bi bu bëggee intérêt xam na fa mu war a taxaw bu bëggee gagné xam na fa mu war a taxaw yéen li leen itteel yéen mooy togg biñ leen di tegal ndax lu ngeen mën a lekk la wala lu ngeen war a rejeter la am leen fulla yi nag ba ñu dajaloo doon ñaar wala ñett wala ñu doon benn ket wala ñu doon leneen ku waay mën a indi te togg woo jàppandalul baaxul sellul dàq leen ka moom ak toggam loolu moo leen war mais bu ngeen bëggee dugg ci diw ak diw nañu ànd te diw diw moomu bokk ñu gis-gis bokkuñu xalaat mënul nekk ñi war a ànd tôt ou ci politique à la fin léegi war a ànd rek dinañu àndi waaw ah, loolu la xam nga jamono yi ñu doon wax ci jamono Ablaye Wade mm-hmm. ah, ah, ñetti weer avant ñuy voté ñu bëre yaakaaroon na ni du am benn yoon boo xamee ne dinañ ko inquiété ci campagne mais à fin yàlla dafa ñëw dogalam bëgg-bëgg Sénégal yi féete feneen donc problème bi du loolu lay daaneel Macky Sall xam nga lan la. Mm-hmm. du juboo opposition bi wala ñàkk juboo la koy daaneel mooy li muy jëf jëpp di kontaan si yéen bu baax a baax. waaw neen neen a sori dëgg la mais tamit loolu maa maam du ma. non moom loolu loolu moom gis nga gis nga gis nga loolu. mooy yéene ci gën a rëy ci man. mooy li gën a foor ci man ndax man dama bokk ci Sénégalais yi. ñi nga xamee ni dañoo gëm gëm bu wér ni Serigne Touba moom mooy clé pour génn ci suuf développement ci réew mi te dama la koy tegal benn par benn du ma la indil xasida du ma la indil dara organisation sociale ak mécanisme de développement laa lay indil tegal la prouver la par A plus B que ni nii la ñuy ànd pour liggéeyal réew mi te loolu ma nga ca kër Serigne Touba ndax benn tegtal rek xam nga ndaamal daaru

te dimension bobu mu élevé liguey ak inclusivité bi mu andal moy yoon yi nga xamé ni buñ fa taxawé war nañ ko mëna am gis parce que tey jii man na ma japp ni bare dynamique de développement international Touba demoon na fi Istanbul mais Touba dafa war a nekk ci ni nga xamé non la Seigne Touba yéné ko ci Matlabul Fawzayni ben ville modèle à tout point de vue ci walu assainissement donc am na difi yu bare yoo xamante dañ ko fa war a relever ci wàllu énergie li nga tey jii ñu ngi wax naan changement climatique ñu ngi naan consommation wu euh, carbon beeg nangam sangam yu demee noonu Touba dafa war a mën a yokk boppam doon ville modèle ville boo xamee ne à l'échelle internationale dañ ko war a wane. en matière de propreté ndax diine set dong la en matière d'aménagement espace vert janaatin tajri min tahtiha al-anhaaru yooyu yii yëpp nga xamee ni. moy moy phénomène bi moy moy méthode profonde bi nga xamé ni moy mëna a sécrété al insaanul kaamil jaamu yàlla bi nga xamé ni moy don khalifatullah fi l ard di dundul yàlla wax ki suratul xasas naan wabtayi fi ma ataaka allah daar al axira wala tansa nasibaka min addunia waxsin kama axsana allahu ilayka wala tabxil fasad fi l ard inna allaha laa yuxibul mufsidin matérialité wu loolu laa ni mooy ني bi nga xamee ni fa la ñu war te li ma la doon wax léegi nii bu ñu yàlla dimbalee ba sa kanam bu sénégalais yi xamoon fi ñu toll ci réew mi ci yéene ak pas-pas bu sénégalais yi nangoon def ñaq seen bopp te def confiance seen bopp xam ni réew mi mooy génne doomu Sénégal bi ko war a jëriñ ñu def confiance ñi ko jëriñ kon laay di ngeen xam ni ni gaa yi jàppe ni jafe na jafewul li noonu ni gars yi jàppee ni développement munuñu koo jot te demeewul noonu. yomb na loolu waaye dafa laaj tuuti sacrifice boo xamee ni mi ngi tàmbali ci ñu tànn nit ña ci fa war ñu teg leen fa te yàlla tax.